waa bisu. yow namu naa la. la ma la rawee ëpp na waaye nga rek sànneeku fi laale. ah góor a maara fi jaar déranger sax. Ah, cum xam nga lan moom fi indiwoon. sama kër nga doon jëm. sa kër laa doon dem. ñu yegg non ko. Mhm. aw ma temps instant dama yàkkamti. parce li ma lay wax nii daf ma ñor. Euh, ci maman laa doon dem. maman nee ak xaadim laa fekk ñu toog. di wax say wax dom yaay dama la namoon namoon tellement man li mo tax sa yuma la namee di la wër mais sa sañ ci fo jëm ma ngi ni tok def ful falaale ni tamit ci daara faal la doon dem ndànd faal waye doomu maam jaara ñang di nga def wacc na sama yaay gis nga ni lay def ak man ah génn nga ci été tey loolu yëkkatiwuma tey dama bëgg ñu waxtaan waxtaan sérieux yow fo ma dama yu dama lay wuyu ah, da nga nexa andal xam nga bi xam nga mami sama boy bi may génn sama dom day sama xar man ak mom légui ñu am 2 ans mariama lom neena ma bayil nday lom neena ma ku ne neena ma bayil ma gumba tëx ne mom la mais dom yaay bisu bu deugar sax mënuma koo am ci mom xawma la la man ak moom daal dañuy ñew ñu tok waxtaan genn dem mënuma am ci mom ben plaisir comme si keene daf may téré bopam man mënuma comprendre xawma ma naka la wara a def sax au moins ba sax foon ko sax xawa a am tuuti mom sax plaisir ndax dama ko bëgg. ñi nga lim yëpp xam nga la bayil man ma lay jàppaloo. ndax samay système a garaaw. mais sonn naa de. te nee naa la jinax dafa bari pax te man maa ne maa raw jinax kii fa ma koy téye dafa garaaw maa la koy woowal fii ba mu ñëw ma def la muy def. boo ko woowee ngay wax ak moom bala ngaa pare mu won la ginaaw kooku déggul yooyu. man jigéen laa tamit chéri lu ma bëgg a def def ko loolu dafa leer. léegi yow loo gis. dama koy woo fii mu ñëw ma woo ko téléphone ba mu yegsi ma dem defar samay jus yu baax. def ca la ma cay def mu tëdd fii nelaw nga fël falaale ba muy moom bàyyi laa néeg bi nag loo xam def ndax góor nga de. mais dafa mel ni li nga wax nii xalaat la de. mooy yow. doroge ko rek mu mu mu mu ne waaye yow loo xam def déggoo ma de. mu tëgg wëndeelu ko. <laughs> bu la neexee sax nday ndeysaan def lu la neex ful fa lii moo tax nag booy ñàkk laa xam wóorul. erreur la jamono ñuy mais nag bul ko waaj. na doon suba suba ndax fi mu toll nii sonn naa de. kay soo moytul xew ma sax dama koy fomm. fomb naa xew bi sa mbir laay sa mbir laa jublu nii. boo defee loolu dina ma gënal de. <laughs> nam lay gënalee dina ëpp fii laa koy woo ba mu ñëw. defal loolu te nga ko woo léegi sax te mën naa jox sama téléphone woo ko woo ne ko suba da nga koo soxla jàpp ci rek. woo ko lu mu mënti def suba mu ñëw li mu décorsé tegal sa loxo. dem dee def loolu ak mama. Ah, dama leen koy yombalal. lu loolu lañ bëgg. dinaa leen ko defal. Ah, woon naa fi jaar ko nga fanaanoo. sa mission mat na. Ah. merci def nga lépp man li tax ma lor la na bu jaañ nooy mooy doo sanoon. waa. man fekk ma fi bisu fekk ma muy nelaw wa kii ko dal. eh maman yow lan la. yaa ngi naan kii. jus dakaar bi ba taay. waaw jus ban. jus di kii euh, jus kii. waaw euh, ah, man damay jommi wala. jus Dakar jus bi ma la defaral. ban jus Dakar nga ma defaral. eh yaa ngi may gis. ana bisu. ah chérie tey li nga gën a bëgg nag laa defar muy sa jus jus Dakar. Ah vieux Dakar bu saf sax ay yow xanaa docteur moo la wax loolooy sama jus ah yow tamit ji bu neex laa defaral ba nii may wax ak yow ni moo ma teree nekk sama xel bi léegi la ci nekk maanaam fan laa ko mën a amee sa téléphone pardon ma ñëw may ma tuuti nag damaa am gan ci kanamee nga woo wax ni ok jus bi daa mel ne neex na déggoo ma est-ce que doo indi litre bi sax ma dolli naana moom ak zii rek laay def hmm. zii bi de dafa neex de eh, Ni ngi koy gisee nii zi rek Dakar ji eh, bes eh, ji moy benkal ji dafa neex man ne damaa sax kuy ah chérie yaa ngi mentu kon téema laa bàyyi dara jegewu la foofu jege naa ji xaw ma koo kii waay man dër meelu tuuti rek man ngaa relaxé de kon chérie téema laa bàyyi ah kii war rek ma muñ ko rek <laughs> borom yaay ji baax de ku ko yéene fande moom dana séddi ay ganam reer ba desal jox la desi bi boo moytul moom ngay reere wala doo reer ngene ya wara yak sama àdduna non di sam sa bop di bëgg bazar de sama àdduna dootoo ko defat daa changé daa dëpp kaas yi lam naroon lam waron nelaw yow nga tëdd ko nelaw jekk woon naa ko na bu jaañ noy moy doo sanon noon adi bu ñaa noy moy doo sanon noon kumbis ja nooy mooy doo la changé ba pare mun xawmal lan la daal na bu jaañ nooy mooy doo sanoon addi bu ñaa nooy mooy doo sanoon sama yaram bi am na lu siy dox lu bari sax waxuma la ay sax sax dina ci dox moment lu <laughs> nga ëppal torop looy xoole ba xale bi di changé kaas bi na bu jaañ nooy mooy doo sanoon addi bu ñaa nooy mooy doo daf maa trompé ku bon la kon booy dil bi euh, échec na nii quoi waaw yàgg na dil bi kañ yàqu yéen ñaar yéen a nekk nii waa docteur waa docteur yow li nga namm ci man yow maag yow deux ans de relation yow nga xëy amoo loo bëgg si man lu dul yàqal ma sama àdduna docteur yaayee sëgg di sëgg kay ak sa mbaxana bi di ma mel ni pot sambo eh xam nga lan la lépp ak kii borom greffage bu bëri bi xam ma abazone zo la sol xaw ma lu mu sol ku ñàkk jom kii bu noq di am kii lañu war a jàpp dóor ko bu muy bëgg a dee ndax moom jigéen ju bon na ndax moom si lu bon rek lay dox mosul dox si lu baax. moom ma jaaxal li sàmm boppam bëgg a yàq sama àll bi war a waxal. yéen ci kii ngeen wax man góoru yaafus bale laay waxal. tamit perte manquant kunkan rëg-rëg. cim rabu dex bugguma sa xeetu jikko yow ku ma waxoon li ci yow ma weddi ko. yow jigéen da laa jaral lii jël sa ngor def ko ci palaat wanteer ko. ñu koy jaay sàmm. waaye nag li ma wax ak moom dindi nii sa gaf bu ma la jëm. cim yow doo sax ruus xanaa amoo ay raq yu jigéen deux ans de relation nga bëgg ko bazarder nii tout le temps ngay ñëw di wax naan danga ko bëgg nit ki boo ko bëggee doo ko yàqal avenir am ki virginité moom mooy di am nii nag ngeen di def yàqu société bi te nag nee nañ olof Ndiaye nee na lu waay leble rek ñu fay la ko boo ko defee raqu jaamu dañ koy def sa raq. eh xam nga koy wax ji ñi bu ñu leen bàyyee nii sax day yomb ndax ñu dañ leen a war a <laughs>